ñu ciy jàpp ci jamono ji ñett doon sax yeewu nañu ngir xool mbir mi naka lay demee Makumba ba tëddoowul noonu euh, noonu jotaguma woon ndaxte maa ngi di bàyyi xel boobu ba léegi di bàyyi xel liy xew ci gox yi nga xamante ni ndaw yaa ngi fi mhm. di nett li li ñu fay euh, dégg li ma ci bëggoon a dolli mooy mhm. mel na ni mbir mi mhm. dañu ko yàkkate ñorut waaw parce que bu ñu nee cas yi bari na d'accord monte bi mu ngi monte en flèche d'accord mais dafa am dogal bu nekk loo xamante ne nii moom moo koy euh, gunge. Mhm. moom moo koy euh, mottali. mënoo mhm. tëb tëb rek parce que boo xoolee ñoom démb bi ñu waxee ci ngay doog a ci nga ci lañ lay doog a gindiwaat yow ni ah kon lii moo taxoon ñu dem ci suñ Muntaxa ci weekend bi. Mhm. kon lii moo taxoon porte parole xalifa général def euh, déclaration dimanche. wax ni ñëpp nañu sàmmonteeg mesure barrière yi mooy tandiku sàmmonteeg tere yi. loolu moo lay xamal ni loolu moo tee ñu tëj waa Njaareem mhm. région de Diourbel tëjaale waa Touba mhm. léegi bu fekkee ni boobu ba léegi yaa ngi lijjanti décision boobu ba euh, am na ci loo jëmoon mhm. lijjanti wàlla yeneen yu sew sewaan yi nga xam ni ñu ngi ci dégg naa la sànq nga ne am na ñoo xam ni euh, dañu jëmoon aéroport tey jii dañu war a jël seen bool man mii am na ñu ma woo ma laaj man leen man loolu mënu ma koo lijjanti parce que liggéeyu ma tey dañu jël seen dañu war a jëli seen vol ñooñu ñëpp kenn euh, bàyyiwu leen xel journaliste yi sànq laay doog a jàng communiqué bi nga xam ni euh, euh, njiitu SEDEF si bind na ko am na ci ñoo xamante ne nii fi mu ne nii kenn xamu ci euh, fooy toogee. parce que ci loolu nga wax sax waa Ageroute ñoo ngi nii di joog indi seen communiqué. jëm ci wàllu ko ñoo ngi nee nañu tëj nañu lii di autoroute à péage bi ba vingt heures jotee ba six heures du matin diggante d Thiès ak AIBD mbuur ndax nee nañ loolu ci wàllu couvre-feu la moom mooy en raison de l'état d'urgence et du couvre-feu instauré par le gouvernement le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement par le biais de l'AGEROUTE informe les usagers de la fermeture systématique des autoroutes AIBD Thiès et AIBD Mbour entre vingt heures et six heures du matin waa Makumba li nga wax sànq ki waroon a jël vol war a dem vingt trois heures xam nga vingt trois heures di toog sa kër ba dix neuf heures sax xëy na nga soog a jóge boo egsee ba ci kaw tali bi vingt teur jot dootoo mën a egg aéroport kooku da da ngay da ngay raté sa avol te ki nga xam ni dafa wàcc tamit vingt heures fii ci aéroport nan lay def ba ñibbi këram loolu mooy li may wax dafa am euh, xam nga ñu leen doon wax bu yàggul ci communiqué bi am na ay euh, contresens yoo xamante ne nii yaa ngi dara xam ne euh, li ngay bàyyi buy xew. Mm-hmm. mais pour man waroon nañu waajal. de mm-hmm. manière plus préparée de manière mieux préparée. waroon nañu waajal loolu je pense que ça incombe à la direction générale de la police. Mm-hmm. parce que ñoom ñooy joxe la passer yi. wax ni ñeeg ñeeg ñi laissez-passer am nañ ko. kuy tukki bu wanee passeport boo xam ne am na visa bu valide. Euh, jaar ci aksu aéroport wala ñoom ñoo xam loolu seen liggéey la nan lañ koy lijjantee ba mën a lijjanti nit ñi Dakar dem dikk mi waroon a dem Dakar dem dikk mi nga xam ne bu fekkoon ni moom mi ngi def ramassage pour yóbbu ca kii ba man nit ñi mën nañ ko fa fekk dugg yor ay kayit yooyu yëpp lijjanti wuñ ko mm-hmm. euh, léegi nag bu fekkee ni violence am na ci moom violence moom condamné rek moom moo ci gën moom parce que amul benn violence boo xamante ne nii parce que xeetu violence bi ne war nañ ko mën a d'accord àggaguñ foofu mm-hmm. àggaguñ foofu loolu ci kanam lay doon mi ngi ñëw soreegul ku mën a ku mën a xaar tuuti di nga gis loo xamante ne nii jar na violence boo xam ne nii jarul aaye mais fi mu ne nii fi ñu toll nii tembe yaakaar naa ni impréparation ak euh, dagg lu ñorut mhm. feeñ na te fokk nag ñu gaaw jubbanti nu mu gën a gaawee lu ko mooy danañ gën a indi yeneen jafe-jafe mm-hmm. ñoo xamante nii fi ne nii laissez-passer yi commencé guñ ko délibéré mm-hmm. bëri na ñoo xam ne seen liggéey mayu leen ñuy fatu vingt heures mm-hmm. ci mel ni journaliste yi gis nga fi ne nii am na ñoo xamante nii yow yaa ngi foofu toog boo noppee da ñibbi ki la war a wuutu foofu mi ngi ci këram bu noppee moom day ñëw dafa am ku muy àndal dafay toog foofu xaar nit ñi nekk ba léegi. am na yu ñu war a complété et puis bii yoon couvre-feu gëju fi. bële passé mënoon nañ leen baal yu bëree bëri yoo xamante ne nii defoon nañ ko mu nekkoon ay ba léegi ñu yi nga xam ne ñoom ñoo directeur général police bi nga xam ni moom moo ko doon def mi koy soog a jëfe ministre de l' ba naka noonu ba ci président de la bi nga xam ne moom moo ko décrété loi base bi kenn sa mhm. nga xamante ne bi ci dem boo njaay nga ci jóge waroon nañoo yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci gis ko ci ñu fexe ba bi yoon mu gën a rafax gën a yomba joxlante ñi euh, gën a nag li gën ci ñi mooy euh, ñu delluwaat ci euh, kër yi parce que maa ngi déglu mais dégg tey wax lu valable loo xamante ni moo ko tax a bëgg a jëm ci mbett bi. Mhm. waroon nañ ko war a gën a mën a waajal. jërëjëf Macoumba Beye